من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بكي ستام سنميسون بنزورنا يوني جاجفل دلان تلال تسين نيان بسفي ngeen yeen ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala comme niñ ko jangale ci passé ñu joxal leen benen turu borom bi ñu ak naka lañ ko ci war a ñaanee ñu jox leen tey alkarimu alkarimu alkarimu mooy ku baax ki ku baax ki mooy borom bi subhanahu wa taala kon nag yàlla moomu baax newoon naa la melokaanu yàlla yooyu doomu aadama daf ci am cër war ko mën a dund te da koy ñaan borom bi maanaam du diir ndëgg borom bi déedéet da koy ñaan pour yàlla cëral ko ci melokaanam yooyu alkarimu mooy ku baax ki kon wool yàlla ci yaa yaa karimu yaa karimu yaa karimu mooy yow ku baax ki yow ku baax ki xam nga boo bëggee nit may la sax boo ko jaarale noonu rek dalay daal di may wala xolom daal di tooy yàlla nag mu ngi noonu daa bëgg ku koy kañ te boo ko woowee rek mu wuyu la ci turam boobu kon sa cër ci tur boobu mooy woo yàlla mu def la ku baax def la koo xam ne dangaa baax ak sa njaboot mu boolee ci gaay yu baax yooyu nga xam ne loolu melokaanam borom bi subhanahu wa moom mi ko moom kon sa cër ci tur bi mooy loolu nee naa toujours bul fàtte di ñaanal sa njaboot di ñaanal ñi nga bokkal ndax yàlla moom mayam day baawaan kon boo ñaanalee sa bopp baax ñaanal ko say doom ñaanal ko sa njaboot ñaanal ko sax say xarit yaakaar mu yaakaar yaa mu yow ku baax yow mu baax ki nga daal di wax sa soxla def ma ku baax su la neexee wala boole ma ci gaa gaañu baax bi su la neexee kon loolu boo ko amee mu nekk melokaan bu rafet jikko ju rafet ci doomu aadama ndax nit dañ koy kañe toujours mbaaxam déggu ñoo la daa baax kuñ ko wax rek alhamdulilahi rabbil alamin kon mbokk tur boobu bokk na ci tour yi nga xamne yépp am solo waye de lañ ko zikk comme ni ma leen joxe yenen yi rek manam baña yek yaakar kon mbokk yi ñu leen di jaajëfal incha allah di leen wax bonne journée wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma ya man ala al arshi istawa يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقا